xam nga ne li ma wax ci Ousmane yëpp dëgg la Anna s'il te plaît génnal nga wax nga dimbale ma dama sonn Anna mënuma taxaw ci fenêtre Anna mënuma génn mënuma dem fenn Anna tout le temps maa ngi si nekk Anna je sors pas naana tumb ba mandi Anna du ma nelaw sax guddi Anna s'il te génnal nga wax nga xamal nit ñi li ma wax dëgg la parce que je sais que xam nga ne li ma wax dëgg la tu connais ton mari génnal nga wax ngir yàlla dama la ko ñaan génnal nga wax dama sonn justice Sénégal bu fekkee ne du ma sénégalais ngeen wax ma bu fekkee ne duma ma ngeen wax ma ma dem xooli feneen bu fekkee ne mën naa am justice feneen ngeen wax ma ma dem xooli feneen xaar bi yàgg na dama sonn un an ma toog di xaar et que dara du tax ma bàyyi lii dara du tax ma génn ci ci tànk yi ma taxaw dara du tax ma jóge fa force lay am justice Ousmane bordel lu tax doomu wuyu si Ousmane Sonko mu sell mi le combat mortel bi nga nekk di woote combat boobu man ak yow la. yow nga ne yeewi askan bi Ousmane yeewi ma balaa nga yeewu keneen après ñu àndandoo man ak yow yeewi askan wi yeewi askan bi ci otage bi nga leen jàpp yeewi askan bi li nga yeewi askan bi ci li nekk di ante seen passé yi nga yeewi askan ci li nga xamante ne ñoom seen doom yi ci lañ dee seen 14 doom ci lañ dee ñu mën a xam si seen doom yi au moins ci lañ dee seen doom yi mën a reposer en paix yàlla leen yàlla xare àjjana Ousmane kañ ngay arrêté kañ ngay bàyyi nga ne kenn du la tëj ça on verra bu fekkee yow yaay président de la république bu fekkee ne yow yaay justice justice Sénégal yow la bu fekkee ne loolu la yow yaay yow yaay dicté justice Sénégal ça on le verra kenn du la tëj ba ba ba da ngay dem suite ba te violé def lu leen neex juutal ay xale yu ndaw tëddee leen def lu leen neex ne kenn du la tëj on verra Ousmane Sonko bu fekkee ne du la tëj on verra.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 Orange Money Western Union bu fekkee ni da nga nekk à l'étranger alors qu'attendez-vous ñi ngi nekk marché Tilène rue 19 angle 18 téléphone 77 462 41 41 ou le 77 681 57 38 ou 77 924 45 20 damani neexul ba neexul waaye or bi jeg ji bëgg no boutique Zamzam rek la am wurus bi jeg ji bëgg dama koy maye